koy wax xaaral rek ku def lu bon dañ koy wax ku def lu baax dañ koy wax fii Dolce Motoro moo fi def émission bu baax mu ngi si Seneweb bi mu ngi si YouTube bi mu mu mu ngi mu ngi Google koo boo boo amee émission bu mel noonu nga def ko nit ki jar na personnel bi yëpp nee nañ am di waxal ñu Kébé caméraman mooy chef tous les caméraman nee na mu ngi lay remercier parce que euh, euh, ba diplôme bi waral nga ko kii. waaye ki nga xamante ne nag tey mooy sama collègue de travail muy Rama euh, maa ngi lay nuyu di la siyaar euh, tànk yi nga jël Seneweb nee nañ dinañ la defal décoration yow amul li lay décorer loolu ay kaas ana suñu kaas ya. kaas yan kaasu kii yooyu. may ko ki woon démb. amaat na yeneen. ah stock bi kon nañu ko kemee eh, di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp abal ma nii studio bi la neex kay doxee indi ma beneen bi. ana carton yi waaw setan yëpp ni andal àndal sa kaas décoration bu tëyee kaas loolu kasete amul dara di nuyu ni setan ko leen nekk ci numéro bu baax bobu nak 88 628 17 27 ngeen daal di la laay laay la la wax fi nga ubbee daf ma neex ci sama di nuyu ñëpp di gëreem ñëpp di sant ñëpp di nuyu borom daaru bu baax baax maam Thierno dara jaxase ay wax da ngay nekk ci ben élan jek jek changé ko nga melni ko ku waa ah. lo loo wax la dama ne. kër gi léegi dama koy wax en sérieux. kër gi danoo. si puudar bi weex na ci kër gi anamu. ray na ma kon. ma xool sama bopp. zoom leen ma zoom mënu gëm lii. maquilleuse bi kii war naa la dese xool liñ ma def. kii laaj naa dàq. samay organe nekk fa. ah ah ah ah ah ah ah li lii ah li may mel ni maam premier com bi ñëw ah. la la waaye yi rek ya waaye lii la ma lool adama yàlla ma yàlla àtteeg moom adama war na ma def lii waaw adama dama bëgg xam samay organ lu si ñàkk fayda ba mu war maa xoola def ma lii la ilaha illallah jërëjëf Adama yow sa dàq leer na Adama war na maa def lii ah est-ce que Adama war na ma def lii Adama ñeneen ñëpp da leen di maquillage correctement yow rek li ci def lii ma def ma métti dañ ko dàq dañ koy dàq métti na ma torop Adama da dañ koy dàq boo xam ne la review review lii loolu bu keroog la waxoon lëppaa lëpp xaw ma. waaw ñu la bëgg a def de. ribbi mooy la. mooy loolu Amina di jaay tamit didim tuñ. lan la Amina di jaay. rouge à lèvres bi périmé yooyu muy jaay. waaw. yooyu nga ma woon def. yooyu la la bëggoon defaraat. naa ma da ngay ñëw ma defaral la ribbi yu bu toog nga xam da ngay toog ci télé bi boo maa toog xale yi di jooy ma ko voilà defar ma yooyu. rouge gi mu rouge de yàlla na la ko yàlla nëbb. waa xale bi lan moo tax ci boo xefee mu mascara la de. képp koo xamante ne mboq aadama nga. waati waawoon pël. waati waawoon pël waati waawoon gël gi yëpp yéen ñi nga xamante ne yéen yéen a jur aadama ne leen ko mu ñëw jël si ay bagages am te xam ne dàq nañ ko biskin tey bu fi xëy see nga xam ne xëy si boppam la def ndax mise à scène nañ ko mise à scène nañ ko mi euh, mise à scène licencieux mise à pied <laughs> mise à pied nañ ko. waa léegi wax leen ñu baax yi ñi nga xamante te ne ñoom la ñuy àndal ci émission bi. waaw kii. ay la la la <laughs> c'est un parfum de classe kii dañ ko war di daaj di piisoo. bii rek doy na ci piisoo dina ma neex bi nga xam ne studio bi xet fi jaxasoo dafa bëri nga xamante ne ñoom. ñoom keroog ñu sangu moo tax may def bii. ay hmm. la la gis nga ni mu dañoo war di sangu dèjà na wax monteur yeeg caméraman yeeg waa régie alu alu waaw kii kii bi laa koy may taaj single moo gën a force parfum yi. alhamdulilah piis atal. seen côté laa koy piis ñoom. ah xam nga ni kebe li muy def dara baaxul. c'est mort. fii moom ku ko lebal la nga ko ku géexul ci kaw rek yaa ngi géex suuf kebe yaa ngi ñuy bëgg a rey piis ko kebe xamaloo añee yaa ngi ñuy bëgg a rey a talent jar nañu kii mari. Eh, ay na ay kaba ay kaba léegi génn sax rek. Mm-hmm. génn leen allo. allo. oui. Rama. allo. oui Rama. oui ça va na nga def. maa ngi fi namm naa la. maa la raw lu bees. ah bëgg naa la dara ma yow. fii la ëppee sama xarit bi xol ah, laa bëgg. ah fii la ëppee noo tudd. maa ngi tudd Aïssatou. Aïssatou foo ñuy woowee. maa ngi wootee Bentale. ana waa Bentale Aïssatou. ñu ngi fii ah, euh, Rama sa numéro de laa bëggoon. bul coupé léegi alu dina la ko jox. laajte lu mu koy doyee. xanaa lu waa Aïssatou boobu mooy loo may wax. ah bàyyi bu ma woo la rek. waa d'accord allo dina la ko jox léegi. bu ma ko jox de. su fekkee nuyu doo nuyu doo am na bi ñëw doo ko laajte ba pare taxaw fi mu ni mëng nii rek. <laughs> waaw non non ma doon sa numéro laa soxla woon. parce que yow mënoo hmm. wax ñi la bëgg numéro bu baax bi ñu lay woowee. Hmm, lii rek la def.

téléspectateur. waaw. téléspectateur Kébé jarul nga yëkkati say loxo noonu. merci Kébé. li la naqaree tegu tegu mën a ko. nee na moom sax moom jaroo fa dara. boo déqul ci kaw rek géex suuf. yaa ngi ñuy bëgg a rey. waaw le grand péteur. pétakat bi nga doon. Kébé mii sax lañu torop. heure bi bu jotee mu pañe ñu loo mën ci kër gi euh, euh, balaa sama xol bi di jeex rek hmm. ba ma war a teg kene fu mu lay soxlaa rek mooy fu nga sa bopp nit ki da ngay am intérieur indépendance bopp mais kebe day jëkki-jëkki di ñëw na leen boo leen tardé deux minutes émission bi ma la ko boobu kii kii koy. garaat gi ñuy may noaroo noaroo koy léegi noaroo man dama koy yemalee xam ne ni kebe léegi kebe xam ne man ma arus kebe. noaroo koy def noaroo moom waaw ah, nekk ko si kër gi c'est annulé mu ne ko ndokk. suba ñu tardé. ñi seetaan dañ ciy seet rek waaye. bu dee ñoom rek suba nañ tardé ak des nit ki boo soxlaa sa bopp da ngay tardé suba. Ah. waaw di nuyu ma Bensé bu a baax ndax naan la sax enveloppe naa ko euh, vraiment. nga euh, ñëwoon ci anniversaire bi keroog. kenn invité wu ma waaye. dañoo xam ne boo ñëwee da lekk lekk yëpp. moo tax moo tax ñu ma sama ah, enveloppe dañ laa jàmbat ba sonn. moo tax ñu jox ma sama enveloppe ma dem DG bàyyiwul dara. ay ku nekk un homme nga doon wax un mouton. waaw loolu la defanteeg ñoom. bilaay. bilaay wallaay. anniversaire. anniversaire. boobu ba léegi lekkaatuma naanaatuma. yow lay wax nii. damay moo tax kañ des su ma ko gisee suur rek. anniversaire ma rek. waaye wa anni yarawnaka am na mi ndax munu ma am na mi ndax am na mi ndax la wax waaye am na mi ndax ay maram faal kañ ngeen mën a wax am na mi ñoo ay am na mi ndax maram am na mi ndax am na mi ndax nga yow yow am na mi ndax yow fooy jëmee lii ah am na dàq ne ngoone nag yàlla de ngoone esponsor <laughs> You cannot sing it. ko bu baax moom moom nekk ci ligne bi te bëgg dugg ak yeneen ñi nekk yeneen yeneen ñi nekk ci ligne bi yëpp allo. allo waaw Demba. oui. ça va. ça va bien merci. tur bi nag dama koy lëkk maa ngi wootee Hann Plage xanaa fu ma ko waxee war nga koo xam. xam naa fa kay sama voisine. waaw waaw léegi Hann Plage laay wootee. léegi Hann Plage xamante nañ bu baax. xamante nañ bu baax Hann Plage. Hann Plage waaw. ci wetu marché bi noonu ko way jàdd noonu di dem. waaw foofu noonu ci kañu marché bi noonu. madame Désiré ngi dëkk en eh, bi yegg si na. jërëjëf baax na la am bi. la euh, bi ñëw waaye da nga di sama jëkkër kii puudar bi mu la puudar anniversaire naa la woy naa ba sama put gi di métti ma ne enveloppe bi ñëw nag ndax ku munul dem réeri réeri naan si war na mën a ñëw jox la envelop ndax kër gi moom wax dëgg na yàlla yow mi demoon réeri waaw waaw léegi fay ko réeri ñu enveloppe ñëw xar bi waaw la de kon jeex na man mi nga xam ne lekk ma ci woon naan tëj laa laaj lu ma bëgg ndax man damay résumé ah man dama yee dimanche fee wàcc na allo ama allo waaw. waaw madame kontaan nañ. waaw maa ngi gën a kontaan. di leen eh! encouragé wax. Euh, kontaan nañ ba suñu madame DG kontaan. yow DG eh, madame ma euh, madame. waaw. zoom ma caméra nii. zoom ma. xool ma. zoom ma rek. <laughs> caméra reetaanee noonu. bàyyi jàmbur. <laughs> ak mi xoolal <laughs> ku ne noonu. du ci débat du ma ci débat bàyyi naa rama mu tontu la. kan nga defaral yow. ci plateau bi am gi di wax lii doo tontu. billaay man am dara dara dara. non mais kontaan nañ bu baax. maa leen gën a kontaan beaucoup de courage. À bientôt, On est très content de, votre appel. On est très content de votre compréhension. On est très content de votre euh, encouragement. On est très content de votre. On est très content de voisin. Wow. Merci beaucoup, Andy. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup, Ama. Content, di ko nuyu bu baax. kontaan nañu waay jërëjëf waay madame DG jërëjëf waay jërëjëf waay kontaan nañu wax dëgg na yàlla jërëjëf waay jërëjëf naam sax moo ñu ko gën a mën a ndax voix ba mu extraordinaire te physiquement elle déchire. moo koy toj suñu jërëjëf waay jërëjëf waay directrice jërëjëf waay directrice waa waaye ñu àndal nii man sax DG dama ko war a may ma seen taay si ngeen bi kan si DG anniversaire bi joxoo ko cadeau man daal jox nañ ma cadeau enveloppe léegi yow nit ki di anniversaire yóbbuloo ko yow léegi yow la jox enveloppe lañ ma jox caam dogo nag mu ngi rey boppam ne leen may jox enveloppe sa ko man nag mu ne ma mooy vidéo kër gi man nag fi ngay génn moo xewi li ngay wax déedéet dafa doon boobu dafa dafa xewi yow kebe moo lay ngay daala parce que kebe rek moo lay may ay 2000 ak 3000 te kebe ah, man nag <laughs> yow ama seen te ay su dof du wër tey dof mooy ni fu ñu koy jaayee

cosmétique ñu ngi koy bindee mooy D A R. E ah ah ah, ah man moom mënuma ko prononcé. boole ko boole boole cosmétique. man de mën naa waaw nga fanaa cosmétique waaw mel ni ko a consommation yow foo jaagee. ma ramas mais ramas yow la mooy sa problème quel est ton problème en fait. Kébé jàngal la la ba sonn mënuloo. Kébé mi daa mun dara. waaw caméra bu aayam di ci nuyu bu baax sax jéego nga xamante ne nee na ci kaas yu baax yi la bokk la bëgg. kan si rakku kebe woote na léegi nee na kaas yi la bëgg mën na ko en direct ngay woote ma may la. jéego moom lu mu bokk eh, lu mu bokk kebe. ndey ak baay. non Adama ak kii ñoom ñëpp bokk ndey ak baay. non Adama nga xamee ñaari seex yi ñaari seex yi laay may les deux les deux. ah dama il faut nga jox ma trois classes ak Papa Kébé moo xam ne sama promotionnaire la ñoo bokkoon classe Papa boobu ni laa doon laa ilaaha illallaah ndax la laa jël du ko xëcc man <laughs> Papa Kébé <laughs> waaye nee yaa moome ma temps yi jëlal jëlal jëlal rek laa di saat bi yëpp naa leen ko Papa Kébé moome ma waaw góor lan la kii di xëccoog man ay raxas oto dama mag ko am 1000 francs yi nii nga bàyyi coow Binga ni guru guru guru gura bi nga moomee vin xewoon me si wa chur de tau kui ki wa wa binga mo me va mbe sa no wo ni wo moi ko bi ai binga mo me va ke onde ma mo me va te una binga mo me va ke onde ma mo me va te una i i binga mo me va Dang ko ñu toppatoo waaw waaw bi nga moomee vin xalaatoo woon ni dina mës a jeex waaw waaw bi nga moomee vin ndey saa seexaloo ñu woon muy doom yaay bi nga moomee vin teewoon nga ma moomee vin teew na bati te yow ay sa moroom te xew nga te sa moroom yi xew nangul waaw si sebili dafay demi mbaa ñu demi mi, fi sax li la yàlla dogal xew nga bi nga moomee fa xew nga nga moomee fa xew nga waaw li la yàlla dogal xew nga bi nga moomee fa xew nga asalaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga def. maa ngi fi. mais seen émission bi dafa neex. merci beaucoup chérie yaa ko moom. mais maa ngi leen bëggee bu baax. fii la ëppee sama xarit bi noo tudd. man maa ngi tudd Ndeye Fatou. Ndeye Fatou am di waxal ak Ndeye Fatou. Ndeye Fatou. naam. na nga def. maa ngi fi. foo wootee. man maa ngi wootee Dakar. Dakar. fan ci Dakar.

allo. yow may ko moom vent dafa ñàkk fayda man bëgguma ànd. may ko moom vent. dañu dem yeggali sax seetaan may ko ñi moom vent ñëpp te boo jekkoo day baal day baal del baale loolu la Fallou Dieng wax ma ci da ngay baale. boo jekkoo moomee vent ñi moomewul vent da nga leen bu defee su yëf yi tourné ñoom tamit ñu mun laa bàyyi xel loolu la kon loolu.

wax sax xamu la wax. dafa ëpp. non Fallou Dieng téye santé bi bokk na ci meilleur clip yu ma bolé si at bu bees bi. Mhm. bokk na ci clip bu bees yi nga xamante ni mooy. at bu bees bi nag nak da fay am sens loolu motax mu neex ma. wa motax da kay togg toggat ko. xol ko bala mu ko jox gi Sénégalais di koy consommé da kay dugg xol ko ségg ko xolat ko. ségg ko xolat ko lepp le grand parolier. moom nag woy façon yi rek lay way ay ay. c'est une parolier. c'est une. parolier. Ah, merci parole yooyu mooy ñi nga xamante ne yee boo xa woy boo xamante ni day yee askan bi day yee paa di yee mère di yee jeune di yee bébé di yee les euh, les toutes les les les kii waaw ñun ñi ñëpp société bi yëpp xam nga boo moomee vent xam nga bu njëkk moom ay moom ay woyam ay cax la moomee vent boo ko mooy maanaam gis nga taw ak ay ay maanaa ay yooyu yëpp mel ne ñoo bokk même fi ñu jëm de ak ay fëkk non que non non non non non non non non non non non non si si non parce que non non non non bëgg a xam non non même même non même non bi non ñoo non li li non non parce que bu non non non bu si non ak par non non non non non xam non non dañuy daal dem non pub ba que non non non non non non non non ñu non daal ñu expliquer dinaa eh, war a park xam la. ñu wàcc ñu daal di dem seetaan pub dellu si waat. Eh, léegi ci zéro stress. partenaires yi àndal saa su nekk di leen nuyu ah, ñëw sëñ Bas mi ci produit yu génn di nuyu waa Palen cosmétique nga xamante ne ñoo nekk ba euh, marché. ci leen am na marché yëpp nag ñoo ngi fa ñooy def euh, produit yu baax yi ñoom ëmb seen ñoom parfum dina ma neex ak yeneen yoo xamante ne foofu boo leen fa demee di nga leen fa fekk ak ñoom sa sama junni beeg yëpp fa nga koy fekk di ci nuyu bu wax waa GTS nañ leen bu baax di nuyu ñi yéen ñi ñuy àndal saa su nekk nag tey nag madame Fall mi nga xamante ne euh, ñun ñi nga xamante ne fii la ñuy liggéey waaye képp ku ci am lu metti wala dara moom ngay dem seeti ci bureau daal di koy waxtaan xam naa sax nag amaa kontaan ndax goroom la moom maman Ndeye Derbiche ñoom ñëpp kontaan kontaan nañ ndax nag xam nañ ne madame Fall li muy daj ci kër geeg yëpp ku bu soxla jibi ci madame Fall ngay jaar tey madame Fall la ñuy ci zéro stress mm, mu daal di waxtaan ak yéen comme sax xam naa ne mosoo leen ko gis tey ngeen koy njëkk gis nag ci zéro stress nag madame Fall na nga def. waaw man maa ngi fi waaye li ñuy ñëpp di gërëm ñëpp daal xam dafa am yoo xamante dafa rafet ci kër gi kër gi ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp ay jeunes lañ mais parce que bu ma ñëwee xam nga vraiment ji bi dafa sonn dafa sonn mais am na yoo xamante dafa rafetul léegi ñun bu ngeen toogee di kii di xuloo fii di ŋaayoo yooyu dafa baaxul daal loolu dong la ñun xam nañ ne saa su nekk lool ngay dox sax nag ci ci kër gi ah. te ku añ yaa ko togg dëgg la mais xam nga wërsëgu jaam jaam rek la doon xam nga la man ay affaire añ yi sax yuy sax garaawul parce que nit ki moom lu sa pepp ceeb rek dañ koy lekk daal parce que am nga affaire yi dafa doon ay affaire yoo xamante ni nga jibi mii billaay ji nga sama yaay da koy ñaanal billaay ji nga jibi mii <laughs> eh, yaakaar dafa dof rek waaye dëful de ni ngeen mu baaxee noonu di reetaan noonu noonu nga mën a xeer xoolal mu ne la ci biti fu la kaa fut doox waaw man nag madame la man mi nga xamante ne ne ko la maa maay magu kër gi maay kaas lépp li ngeen mën a toog liggéey ngeen liggéey bu ngeen ko mënut di ñëw heure di wax heure di ñëw heure waa parce que visite bi ku ñu dugg si si biir bi ni la génneel saak di nga ko xool waaw am na yoo xamante ne dafa rafetul daaw. kon nag yow fu mu toll nii eh, yow tantu Amina Diop ci kër gi. waaw yow doo yedd Amina mu ñu bàyyi rousa yi muy indee yëpp di def commerçant bu butigu mbagg ci kër gi. xam nga liggéey liggéey la man dama koy encouragé parce que Amina xale la boo xamante dafa baax. xam nga man su ma ko encouragé tax moom léegi wax dëgg ne yàlla rousa yi moom buy liggéeyee. xam nga jamais mu tardé. mais kañ xam li ñu war a wax. mooy waa zéro stress ñi nga xamante ne chaque jour boo boo rama tardé wul. am na million am na million ngi tardé déglu rek déglu déglu déglu man du ma wax du ma wax benn xale tontu parce que réew ngeen torop man du ma xale damay tontu man am na xamante ne man ndoxuma ci da ngeen réew torop bu leen leen dama leen wax parce que yaa léegi nag te te bu heure salaire jotee doo leen may nit ñi jàmm doo leen may nit ñi nàq seen wax da ngay mën a ñëw heure wàcc heure dama lay wax rek da nga téye sa làmmiñ laa la man ma ne duma xale damay tontu laa la wax ma ne duma xale damay tontu déglu duma xale damay tontu laa la wax dégg rek lu ma la wax man dama xale dama tontu waaw waaw ma xale dama tontu xale dama tontu xale dama tontu xale dama tontu xale dama xale xale dama tontu. allo. allo. oui. yow soxna si da nga neex. fii la ëppee sama xarit bi. Eh, yow yow moom da na yaa ko moom noo tudd. man chaque jour dama lay toog di nga seetaan sa sant rek moo may rey. kontaan naa bu baax noo tudd. yaa ngi si. yaa si dégg ma. ma sa sañse a kontaan naa bu baax sa nga yokk tuuti voix bi ma ma mën a waxtaan ak yow lu neex. ma ne. ah. yaa koy ndagate yaa koy gomb. bàyyi li ngay wax nga toog jàkkaarloog yow rek jar na lu ne. oh dina ma neex kontaan naa ci yow bu baax. non ñun ñoo gën a kontaan xoolal dañoo jàkkaarloog yow nii léegi kontaan. dëgg la kontaan naa bu baax. koo bëgg a bégal tey ci zéro stress dem na di ko nuyu bu baax di nuyu yéen ñi ñuy seetaan bi fi dëkkoon teg moo romb ko rek pour xam xam naa sama farce la ndeysaan ñu fekk benn waa ji benn série bu dëxal bu dox ba zubam lu fa jël liggéey si. Mulai ambil dikit dikit kemudian. Maka lebah eh de. Nah, madam Fall fi wax yëpp ya, yow ya, noo ko jàngatee. Eh. Ya, madam Fall moom madam Fall xam nga madam Fall eh, fo rek. madam Fall allo allo allo bi allo. allo nam raw sama xarit. eh am na ñoo defal ndànk rek la sa tey. man de man day gisee. yow la. ma nga Ndeye Guissé. Ndeye Guissé. waaw. ba Ndeye Guissé. barke Serigne Touba yore samay fan Ndeye Guissé Pikine talib mag. eh waay sàmm Ndeye Guissé waay. yéen laa wér. ah. namu leen dara. namuñu dara ñu ngi ñu namm xëcc ba nga gaa toog si tàkk dëkk ñu hola duñu bàyyi. am nañu ah. ah périg bi. ah périg bi. mu ngi périg bi. périg ban. périg bi nga dindi léegi may ma ko. ah nee na période bi nga defoon léegi période bi nga defoon léegi dama ko may man duma madame Fall madame Fall di waxee nii ni may waxee madame Fall may waxee nii waa na ngeen def sa waa kookoy madame Fall waa na ngeen def sa waa waa da ngay ñëw añ ci tey yaa sa yaa sa kii laa togg de sa yaa sa lapin waa di mën nga ne ma doon fekk alors ñu ngeen ma waa yéen ngeen waay seen daane waa loo wax sama xarit bi allo maa ngi dégg. dem na di ko nuyu bu baax di nuyu waa Pikine. ba may tey. waa léegi da ngay wax nag sama xat bu baax ma daal di waxtaan ak yow lu ne. wax lu baax. waa lii lu tax muy coupé. moom amul réseau. amul réseau. Pikine taay dañ leen localiser si réseau bi xam nga ñoom dañuy tëb. moo tax muy wax muy dagg-dagg. waaw day dagg-dagg. <laughs> mais nuyu nañ leen bu baax ci di leen di rafetlu suñu ànd ak yéen saa su nekk yéen yi nga xamante ne yéen a ñuy dolli saa su nekk ci li ñuy def di ñu woo ci téléphone bi di ñu seetaan ndax daf ñuy neex nag bu ñu kenn seetaan. loolu kaa ma nettali leen ma nettali la maa fekk bi gi directeur rédaction. directeur. rédaction. rédaction waaw. biyaa gi. waaw directeur rédaction. <laughs> muy doxaan ci kulaar bi. <laughs> Wah, ayo ya. Mending menanggal pokoknya. Zuta Prada Zuta. xoolal daal naan gel bi xoolal ça va mu ne ko mu xam nga ma est ce que gel bi ne ko non man biyaagi lañ ma boole mu ne ko man la biyaagi mu ko non est ce que juumoo mu ne ko waaye dama fa en fait dama doon sama demande pour nga jël ma mais mu ne ko mais dañu mën a jël waaye xam nga affaire yi moom dafa am loo xamante ne bon donc xam nga mooy li nga xamante canapé euh, promotion canapé ko euh, allo. man wàcc naa. lu tax a bëgg a wàcc. man mii yaay wax biyaa gi lu rëy lii ma taxaw fii di ko déglu ñu may. maa ne biyaa gi la doxaan suba laa koy yeggali. hi suba kon du ma ñëw. suba laa koy joxe en direct képp ku bëgg xam directeur rédaction la mu a wax gel bi ñëw ngeen wax ma DG moom ne lépp loo fi gis boo leen ko waxee mënoo leen ko wala si waxtaan toogal sa nga wax ak télé bi Sénégal ko. biyaa waale ko. Camara de caabi. Ah. oto bi gaare ci buntu bi te mënatul dem ki réeral caab bi doo ko wax. ah yow dafa am yoo xamante ne da koy xam ba pare doo ko wax. allo. waa léegi waxoo allo nga tëb ko dem ba ca biyaay. fa ma tee métti. allo allo fa réeral caab. oto yi de benn dematul saa yu génn di réeral benn kookan la. allo. Ah, coupé allo allo réeralu ko de. kadeer ah. la. Kader moom dafa war a toog seen kër mu mel ni courrier nee naa ko taay daw lettre demul ñëwul bàyyi toogal foofu ba nga am liggéey ah li yóbbuwuñu seen Iran yóbbuwuñu fenn lettre yi muy yóbbu poste ak yooyu. ah, ah alu moom dafa ëppal trop li mu doon réer ko waaye di. alu moom ah, du nelaw mu ngi si mbedd almadi di taxawaal. jox naa la xol bi nga mën a sentir man. <laughs> dinaa la seet si. yow nga ne Kader lu mu doon dural. Kader dama ko gis mbedd almadi yi xoolal mu taxaw def ñu xoolal. Mm. xoolal taxawal def nii. xam nga kare dafa fange. Ah. dafa fange léegi kare bu mu taxawee rek xam naa gàllam bi la doon xaar taxawal def nii xoolal poto almadi yooyu nga yi noonu. xam nga léegi lamp yi xam xam nga bëñ yi dafa fange nii léegi boo toogee loin taxawee loin boo xoolee kanam kare da ngay yaakaar ne méga cigarette la fii. Hmm. waaye ñoo ne ko jaafaay mu ne ko jaaf mu ne ko dama abal ma taalaa ah, mu ne ko lay taal mu ne ko noonu sa mego mu ne ko ban mege. <laughs> ban mege nga wax lii di daan. <laughs> suba incha allah xaaral ma remercier Khady Ndaw ak ñoom Rose ak Mariane bamakoro kalo aw ni su n b'i fɛ yɛrɛ mayiwa je t'aime yabalien yabalien n b'i fɛ yabadɛma xew kon gaa yi